lii un million la moo ko ko jox ndàmpaay ngir ngeen jàppale leen ci wàllu paj mi waaye na ngeen xam ne ñaan gi moo ëpp doole te mu ngi ci bu baax baax baax bu doon sagoom benn doomi réew mi dara du ko jàpp moo tax it mu ngi ñaan bu baax a baax baax ngir réew mi am jàmm na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi loolu tëwee moom ñu koy ñaanal Balla Aïssa jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Mountakha moom ah. dañ koy ñaanal ah. yàlla na fi yàgg te yàgg fi lool te ndaxte gis nañu li muy def gis nañ ko lool ci jàmm ji jàmm ji moo njëkke ak tamit ci yiir ñu sëñ mu tax a defal ku ko gis day kontaan ñëpp ko bëgg sa yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg lii xam naa ni ñaan bi moo njëkk ndaxte ñaanal na àdduna ñaanal na àdduna ñaanal na suñuy doom bi ñu bi ñu lii dalee ñoo ngi koy ñaanal gudd fan lool yokk jugu fan lool bu ànd ak wér jërëjëf jërëjëf ñun tamit ñoo ngi leen di jërëjëfal jërë ngeen jëf te ñaan tamit xale yii nga xamante ne sëñ bi def na lii ci ñoom indi ñaan yal nañu dund ñun tamit xale yii ba ñuy indi àddiya te fekke ko ñu fekk fi sëñ Fall sëñ Saar kenn mu taxaa ah. nga xamante ne ñoom tamit dinañu def lii ah, ñëw toog moom te dinañu ñëw incha rabbi dafa am magam boo xamante ne surtout gaynde Fatma la dafa liggéey ni xaw na ñaan sax waaye kenn mayu ko ah, waaye incha rabbi hmm. bëgg nañu si yi passé hmm. dinañu gën a dem gis ko toog moom ci kattanu sunu borom bi incha rabbi ah ñun de bëgg nañ ko bëgg nañ ko gis de ndaxte keroog ko Jinaan fii bu mu ñëwee rombee ñun màggal gi ci ñun la woon ñun ñoo aye woon màggal waa HLM waaye sant nañu lool sant nañu lool sant nañu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ Youssou Diop waaw waaw waaw waaw dëgg la dëgg ngeen jëf yéen ñëpp ñoo leen di jaajëfal sant nañ leen jërëjëf ñuy leen ñu sëñ bi ñuy leen ñu ko jërëjëf ku xoole junni ñu jàppale sëñ sëñ Mountakha ay ñaan ñaan moo jiitu sax te moo ko doole tamit dina leen dimbali ci wàllu ci wàllu faj mi jërëjëf jërëjëf amiin amiin amiin ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan mu yàgg fi yéen ñi ñëw yàlla na fi yàlla yàgg yàlla na yàlla ñëw ba mi tanewul ba mi tanewul alhamdulilah sëñ bi dafa moo ñu yóndoo ñoom gis nañu bu sa yaay def nañ ko téeméeri junni cinq cent mille jàppale la ko ci paj waaye nag ak ñaan moo jiitu woon ñaan gi nag moo ëpp doole fop waaw te na la wóor ne moom képp ku bokk ci réew mi ak ku kii koo xam ne yaa ngi di ab julli ak fu mën a ne bu doon sa moom dara du la dal ko sa loxo yi ñaanal yàlla na sa am taal ñu doon si ñu ko fi ko ko ñu sa ñu sa ñu la sa sa ko to mo dem so am ay ñu sa ko sa ñu sa sa ñu sa ñu das ist das das ja wurde das war ja und das und und so so